asalaamaaleykum internet bu Sénégal alors te ñu am plaisir dalal fii groupe bu Zik Queen mais euh, ma euh, Hélène moo ñu bàyyi na fa ñoom Maria Marianne bàyyi na fa ñoom bàyyi Demba et tout loolu featuring la woon récemment génnee nañu benn single boo xam ne toj na TikTok bi ñu ngi ci wax affaire wujje et tout mais dinañ ci ñëwaat ma bàyyi ko mu nuyoog internet ñu seetaan waaw asalaamaaleykum euh, waa Sénégal asalaamaaleykum waa Sénégal yëpp ak diaspora bi yëpp asalaamaaleykum képp ku ñuy seetaan macha allah travers Sénégal maa ngi leen di bu baax a baax. maa ngi naan Mariane Mariama la. Hmm, Mariama Faye oui oui. Mariama Faye ñu koy moom tax ñëwul. Mm. moom nag euh, Belgique la nekk en fait foofu foofu la résider foofu la nekk en fait. Mhm. mais des fois mais comme sénégalaise la macha allah papa mu ngi fi yaayam yëpp ñu ngi fi donc donc des fois day ñëw vacances di dello mhm. mais actuellement nag Belgique la nekk. Mhm. alors su la doon wax nga présenter seen groupe bi lan nga may wax. waaw euh, je dirais que Zik Queens est un groupe euh, composé de deux personnes de Mariama fay alias Maya Queen. de, et de Hélène Koulibaly, alias Lena Queen. Donc, euh, on a fondé, euh, le groupe a été créé depuis en 2008, mais bon, par la suite, entre-temps, on s'était perdu quand même de vue, parce que là, il y avait, les, les, les, les études, les formations, et Maya d'ailleurs, voyageur par la suite. Donc, euh, c'est en 2019 qu'on s'est retrouvés, et on a, Machallah, continué la carrière musicale. Euh, est-ce que vous fi ngeen nekk Sénégal. waaw instant bi nag nous sommes basés ici euh, mhm. Sénégal fii nii lan lañu nekk. Mhm. donc fii la ñuy defee euh, fii la ñuy def suñu single vidéo clip loolu noonu yëpp et je je tiens également à préciser que le Zik en fait. Euh, représente la femme en tant que telle. Mhm. Donc c'est un groupe de deux filles, Machallah, qui représente euh, la femme, Machallah, à travers ses belles mélodies, la musique, la femme. Parce que Khamgare, c'est pas que la femme noire, mais, mais toutes les femmes du monde, donc euh, les, les, repré les représentent. Mhm. Lan seen xel ba ngeen xalaat former groupe? Waaw, euh, tout d'abord, euh, don bi la ak passion bi. dégg nga donc euh, man euh, yàgg naa bu bëgg musique depuis depuis depuis à l'enfance d'ailleurs parce que des fois ci école bi yenn fosco yi damay dem damay pri demee euh, def yenn prestation ci théâtre ci musique donc loolu noonu lu ñu lu ñu bëgg la depuis depuis à notre tendre en enfance donc c'est grâce à une copine nag euh, qui nous a mis en rapport man ak man ak comme moom da dafa bëgg musique dafa bëgg a fecc ak yooyu man tamit boobu bëgg naa musique donc elle s'est dit pourquoi nous ne pas nous allier ñun ñaar ñu fonder benn groupe euh, appelé Zik Queens parce que jigéen euh, dañ naan àndam day xaw a kii des fois kii xalaatee feneen kii xalaatee fii euh, mm-hmm. est-ce que ba ngeen ànd ba tey déggoo bi am na ci ci ci mm-hmm. vibes yi est-ce yéen a ko bokk lan ngeen di mm-hmm. def bay composer seen seen waaw waaw de déggoo am na nag xam nga rek tamit groupe boo gis dafa am ku nekk ak ku nekk ak jikkoom mais nag terewul nag macha allah ak bu ñu jotee ak des fois lu mu am am am am tension en fin de compte xam nga dañuy jubboo dañuy dañuy dañuy daal di jubboo parce que macha allah ñuy ànd yenn jote du du ñàkk mais la après ça dañuy daal di jubboo war encore nekk ne nekk benn. Euh, kooku sama sëñ ngeen di defee morso yi xulóom ci biir morso yeeg <laughs> yooyu. waaw d'accord 2008 euh, ngeen génnee maa ngi lay xaar. Mm-hmm. chanson d'amour la. oui mhm. maa ngi lay xaar bien sûr. 2000 mhm. non autant pour moi 2019. 2019 ngeen ko génne ok oui groupe bi de de 2008 lañ ko créé. ngeen ko créé 2019 ngeen génne 19 lañ génnee. Euh, kii maa ngi lay xaar waaw waaw de 2008 xam nga instant boobu noonu on on était très très jeune et il y avait les études également qui étaient là. Mhm. donc c' était pas évident te xam nga jàng moom dafa fiir donc c' est par la suite que man mii sax man maa defoon pause parce que moom macha allah elle avait continué. avec le groupe avec euh, fa fàtte naa ce soir turam euh, une fille là. mais mais mais après après ça nag euh, dañoo séparé woon euh, quelques malentendus xam nga rek léegi après moom nag mu mu mu voyagé après bi mu voyagé nag en 2019 macha allah grâce à un ami qui s'appelle Valentin mm-hmm. euh, moo ñu kiiwaat moo ñu mettre en rapport ndeysaan ñu ñu gisante waat kontaan nag parce que ça mm-hmm. faisait des années qu'on s'était pas vu te man sama seex la. Mm-hmm. donc donc c'est après cela nag qu'on a repris encore le contact après on s'est dit pourquoi ne pas. continuer notre carrière musicale. aha morceau boobu nga ñëwaat ci un peu lan moo taxoon ngeen def seen mm. retrouvaille la. Mm-hmm. ngeen def morceau boobu tamit maa ngi lay xaar. waaw déjà waaw waaw ma maa ngi lay xaar donc euh, loolu ce sont parce que ñun na chaque fois balaa ñuy balaa ñuy wéy benn benn son mhm. il faut quand même euh, ñu ñu xalaat ñu parce que parce que parce que ça vient en fait de la société yenn euh, action yi xew société bi tu vois yenn yenn histoire mhm. donc donc donc fa suñu inspiration bi jógee maa ngi lay xaar boo xoolee si clip bi clip bi ñaari ñaari histoire la benn bi dafa am jëkkëram mais jëkkëram jëkkëram moom macha allah ma ma xalaat doxaan rek lay def te te pourtant moom moom mu ngi def lu ne pour euh, gérer ménage bi pour ménage bi neex bi mais jëkkër ji moom feneen rek lay xaar donc des fois day toog ci guddi di ko xaar xaar xaar ba sonn mais beneen histoire bi ku ku jigéen kii dafa amoon jëkkëram jëkkëram bu bëggoon ko lool mais nag mais nag il a fini par faire. Euh, benn accident dafa de dafa jëkkër ji moo defoon benn accident donc à chaque fois da doon toog di di jànneer xam nga jëkkër ji di koy feeñ affaire genre yi mu noonu mu ngi toog di xaar donc ñaari histoire euh, mhm. boobu noonu yu am solo yoo xam ne actuellement le Sénégalais dañ koy mhm. dund effectivement effectivement actuellement waaye surtout ay trahison ay tromperie dafa xew te ñun à chaque fois balaa ñu balaa ñuy génne son dañuy xool ci ci ci société bi ba pare li xew après c'est c'est c'est c'est sur ça qu'on se réfère pour euh, pour génne ay son mais dañ ñaan jigéen ñi nag ay trahison la ñuy woy ñoom daal positif ñu si côté amour pourquoi est-ce que loolu c'est vrai déjà lu ñuy étiqueté mhm. euh, artiste sénégalaise euh, duñu way lu positif si amul wala bu buñ koy wayee dinañ am beneen morceau boo xam ne dinañ woy trahison yi tout dina way eh, pardon j'ai pas compris. ma ne uh-huh. euh, artistes sénégalais yi dañ uh-huh. leen di wax par exemple jigéen ñi chanteuses yi dañ uh-huh. naan. amour moom ay trahison la ñuy way ay yooyu noonu euh, aspect euh, négatif bi la ñuy gën a way. que aspect positif bi. aspect positif bi pourtant nag boo xoolee surtout jeune artistes yi waaw pourtant nag boo xoolee ba xool nag am na ay wéykat yu bëri ñuy woy mbëggeel ah dañuy parce que ba parce que ni ñuy woy mbëggeel noonu la ñuy woy euh, trahison parce que loolu actuellement sax euh, loolu dafa xew. Mm-hmm. donc euh, nit nit nag mën mm-hmm. nga woy ci ci côté positif comme comme mën nga woy ci côté négatif. Mm-hmm. voilà en plus dafa xew. dafa xew waaw voilà te trahison actuellement comme comme kii lañ ko def naan naan naan ndox lañ ko def. waaw donc instant bi valeur vraie vraie valeur. sax de de l' amour instant bii ñu ngi koy ñu ngi koy perdre ah. mhm. ñu ngi koy perdre bu baax a baax. d' accord voilà. alors ñu ñëw ci deuxième single bi nag boobu nag mhm. euh, ngeen ñëw indi tendance. Mhm. xaw a xaw a xaw a tendance aawee ah. ak ñaareel it e ak ñaareel est <laughs> moo indi morceau boobu noonu. waaw nag macha allah wujje déjà aw e ak ñaareel affaire wujje suñu aaday la bokk déjà. bokk ci suñu diine gi. donc inspiration bi nag fii fii fi mu jógee ne mooy actuellement nag euh, kii euh, wujje dafa xew lool parce que macha allah góor goo gis daal góor yi tey mm. koo ci gis daal moom takk na ñaar ñett ba wala ba ñeent donc moo tax moom moo tax ñu wujjee macha allah pour. Euh, valoriser ah suñu macha allah suñu culture su suñu aada parce que parce que suñu aada la bokk mais nag ci kaw ci kaw loolu noonu yëpp tamit loolu noonu yëpp on a quand même euh, laissé un un message fort on a lancé un un message fort à toutes les femmes qui sont qui ont des coépouses wujje ne pas ne veut pas dire ngeen di xeex ngeen di xul wala soodee tu par exemple à travers télé journaux yi liñ liñ ci liñ ciy gis dafa dafa de dafa dafa doy waar mhm. donc wujjee wujjee en fait bokk wërsëg rek la wujje macha allah xam nga ngeen di toppatoo seen seen alaaj ji daal macha allah jàmm ji euh, jàmm ji daal di di sax si kër gi donc ci son clip bi boo xoolee mhm. clip bi au début sax aaw ak ñaare ñu ñu ngi xëccante ñu ngi kiirante mbàjj ñu ngi giirante mbàjj waaw mm-hmm. mais mais bu xoolee ba à la fin da da sentir benn benn harmonie mm-hmm. benn benn jàmm ji donc euh, fa la ñu fa lañ ko kar daal fa la ñu Hélène yaa yëpp waaw waaw Hélène benn jigéen bëgg lu wujjee xam ngeen da ngeen di tooñ <laughs> da di tooñ da ngeen di tooñ parce que kenn bëggul Adiouza defoon na ko fi uh-huh. après yéen ngeen ñëw gën a ràngate ñu nekk si TikTok bi awa ah yi jël seen part ñaari jël seen part. waaw challenge bu bu méttee métti kay yii waaw waaw. <laughs> est-ce ba ngeen koy bind nag c'était pour ça ku mm. nekk parce que c'est rare nga gis nag am na. Mm. Mm-hmm, mm-hmm. mais awa ak ñaareel bu jubóo. waaw daa sante. la ndeysaan est-ce que est-ce que aspect TikTok bi ngeen jëloon leen ko si. si mm-hmm. si ba ngeen di bind waaye bi waaw aspect si si si ti TikTok bi jëloon nag parce que xam nga macha allah Sénégal Sénégal euh, jàmm ji def def fi bari lool macha allah te yan la yan la fi yàgg loolu donc loolu noonu déjà woy bi c'était de mettre en valeur wujje yi aaw ak ñaareel yi kon aspect ko wooyee. aspect positif lañ lañ ko wooyee donc c' est c' est c' est de c' est de valoriser ah. ruube woo leen déedéet déedéet ñun daal xoolal te ñun te ñun sax far far faruñ fenn. parce que ñu wooy nañ aawee ak ñaareel. waaw macha allah valoriser aaw ak ñaareel waaye tamit. conscientiser aaw ak ñaare ak ñett ak ñeente ñeent ñett ñetteel ak ñeenteel yëpp ñuy sëy mhm. ñu ñu ñu bañ a xeex bañ a xuloo nañu ànd doon benn ah ñun ne nañ nañ toppatoo suñ suñu alaaje imagine yow yow sa sa alaaje jóge bureau par exemple ñëw war na nara nar nara nara nara dàllu nara nar noppaleku moom moo mu si kër ga fekk ki kenn ki soo soo soo soodee na keneen ki <laughs> xam nga loolu loolu tamit yéen maanaam waaw dëgg la waaw dëgg la dëgg la dinañ dinañ dinañ ñëw ci góor yi sax foo ngeen ñëw si góor dinañ ñëw ci góor parce que tataasu bi sax mbay eh, mbay jee fay li li li mu ci wax am na solo mhm. macha allah foofu noonu tagg na aaw bi tagg ñaareel bi kon kon foofu di nga xam ne farul ñaareel bi kese farul kii bi ah. aaw bi waaw ñoom ñoom daal ñoom ñëpp a yam ñëpp daal macha allah nañ doon benn daal nañ doon benn waa kër kër gi neex tamit ku tudd amidi yi mhm. kooku euh, nan ngeen ko intégré nan ngeen ko xamee ak duo bi nan la demee waaw Amélie Amélie moom euh, chanteuse la déjà moom euh, actuellement mu ngi Belgique mais c'est c'est une sénégalaise waa waa dëkk bi la elle chante bien moom nag rap lay def rap macha allah te baat bi euh, gis nga li li mu ci clip bi moom mooy sax ñaareel bi maya ma maya di aaw bi mhm. macha allah am am am euh, kii ami ami di c'est une amie à nous mhm. macha allah bi ñu doon bi ñu doon bind texte bi on s'est dit pourquoi ne pas inviter ami di mhm. mu mu dugg si si clip bi mais également ñu invité waale tamit Baye Demba mu dugg ci clip bi parce que clip boo boo boo xoolee mbalax mais am na rap ci biir am na drill ci biir. sonorité yi bëri na style bi bi te xam nga boo xoolee ba xool style style boobu noonu actuellement dafa xew ci Sénégal drill yooyu noonu nag lañ tënk ci biir donc donc Amédi ñu di koy def Amédi featuring ak moom mhm. mu daal di ñu mu ba mu très bien son bi sénégalais hmm, ko accueillir waaw waaw macha allah moom mu ngi avancé nag euh, mu ngi avancé parce que xam nga tamit son euh, war waroo génne ni son son rek nga yam nga yam ci YouTube yenn saa il faut nga dugg ci Instagram TikTok ci Snap fu ne fu ne fu ne ne foo foo mënta foo foo mënta dugg daal dugg fa parce que actuellement nit ñi ils sont plus basés sur les réseaux sociaux que que la télé sax te télé bi des fois dañuy dem si télé bi mais réseaux sociaux bi la ñu gën a la gën a focaliser wo mhm. donc instant yi alhamdulilah mu nga avancer avancer petit à petit mhm. te tamit Euh, euh, euh voilà je voilà euh, am naa occasion sax wax gars yi nag nañ nañ dem ci suñu page YouTube bi nañ nañ nañ like clip bi que clip bi neex na que clip bi Sénégal la jógee voilà voilà nañ ci taxaw bu baax abonné wu macha allah maximum awe ah nag nañ nañ nañ jël seen ah. bos ci tiktok bi. <laughs> ñaareel di tamit daal di jël suñu bos. ñetteel ak ñeenteel ñu ngi ñëw. yéen a ñu ngi ñëw laay la xëy na daal ñu ngi ñëw <laughs> ah <laughs> ñu ngi ñëw. alors seen projet lan lañ ñu mën a xaar si yéen loo xam ne leneen tamit dina neex Sénégalais. waaw incha allah xam bientôt normalement fin octobre am na suñu euh, beneen clip bu bu war a génn intitulé maîtresse. donc ah. maître hmm. <laughs> maîtresse bi nag noo xam nga rek gis nañ ñun euh, gis nga foyer dafa am solo foyer dafa am solo surtout surtout pour pour Zik Queens parce que xam nga balaa ngay wax ci société dangay wax foyer ba pare nga soog a nga soog a ñëw si société moom moo tax suñu wujjee bi on a parlé du foyer mais également maîtresse bi on parle également du foyer donc maîtresse bi nag ci kii la inspiré woo maîtresse d'un d'un homme marié la inspiré waa mhm. donc euh, benn couple rek xam nga mais foofu noonu c'est le contraire parce que boo xoolee am euh, maîtresse d'un homme marié foofu noonu laal la mu ngi toppatoo jëkkëram mais alors que ñun suñ maîtresse bi jabar ji du toppatoo ji jëkkër ji donc donc donc jëkkër ji euh, da koy négligé donc loolu daal mooy mooy mooy poussé ji jëkkër ji ba dem ba ba ba nekkaat ah, secrétaire sama jabar toppatoowu <laughs> ah, loolu moom du yoon wax dëgg yàlla loolu moom du yoon <laughs> ah ki nga xamante ne ah pardon d'accord ma ne ma ma ne daal ki nga xamante ne moom sa jabar ci moom moom mu ngi lay toppatoo moom mu ngi def lu ne pour pour nga heureux wax dëgg yàlla moom euh, boo def boo defee yeen yenn yi moom yenul maanaam respecté woo ko te xam nga te xam nga la base d'un ménage c'est c'est l'amour après l'amour c'est le c'est le c'est le et la confiance mm-hmm. donc waaw mais fii moom ci biir clip mot moom c'est le contraire jabar ji toppatoo jëkkër ji donc moo tax jëkkër ji di di xooli feneen incha allah nañ xaar nag suñu page YouTube bi léegi mu génn fin octobre la war a génn ñu bëri daa nee neen yéen tamit da ngeen ñëw groupe de filles comme safari ñëw mm-hmm. pour tendance leen parce que ñoom kese ñoo fi nekk nag groupe de filles yu ma xam mais yéen safari ngeen bëgg a yëngal noonu mm-hmm. pousse tuuti ñëw teg seen groupe waaw waaw ba tey waaw waaw ñun ah, daal dawoo leen coow daw yi daw yi naa ñun daal moom ñoon nañ te fas yéene nañ quand même marqué suñu empreinte fii Sénégal waaw fii fii Sénégal moom moo tax sax ñu ñu tàmbali ci maa ngi lay xaar ba pare wujje di dina amat ñeneen yu gën a yu gën a nice yi yu gën a graaw yi nag kon yéen safari ngeen di concurrence instant bi déedéet ñuy euh, wax loolu ñuy wax loolu ne bon da ngeen ñëw mhm. pour concurrence ñun ñun ñun ñun ñun ñun instant yi nag euh, defuñ concurrence ak kenn ñun en fait bë bëggeel sa Sénégal xaw ma bëggeel la ñuy wax sama olof bi leerul mm-hmm. noonu. voilà bëggeel sa Sénégal daal moom moo ñu tax a jóg macha allah en tant que sénégalaise en tant que femme. Mm-hmm. donc euh, Séné Sénégal moom moo ñu ñor macha ak diaspora bi yëpp. donc mm-hmm. defuñu concurrence ak kenn ñun daal dañuy ñëw daal daal di def ba mu baax nit ñi kontaan fan fan si kontaan Sénégal jëm kanam. groupe jigéen ñi sax dañoo war a yokk mu gën a neex. mu noonu nag. gis nga ah, waaw comme ndax instant bii de moom rappeurs ngi fu ne mais ñun tamit ñun ñu daal di ngeen di dominer tuuti. ngeen dëgg ngeen dëgg <laughs> alors euh, tey lu ñu mën a xaaraat est-ce que di ngeen di ngeen def ay concert di ngeen mm-hmm. ñëw pour yi gën leen xam. waaw waaw incha allah incha allah dinañ dinañ jot def concert surtout ci mois de décembre ni parce que là actuellement nous sommes en train de travailler avec DJ Kals d'ailleurs que je fais un coucou grâce à qui macha allah nous sommes aujourd'hui mm-hmm. donc euh, ñu ngi ñu ngi préparer ay concert mais c'est pas encore confirmé allah di ngeen di incha allah incha allah may dara ci wujje bi noonu. wujje waaw acca mi dal. awo mi buru këram jogal dago yaayayum jabooce lu yàgg yàggay dëgg jogal dago awo yi daal ñoo fi ne ñaaral xaritu jëkkëram jogal dago moo fete alaaji fuune lu yàgg yàggay dëgg jógal dëggo ñaareeli daal ñoo fi mana jey mana jey mana jey dafa ah. mel si ñaareel nga fàtte <laughs> alors looy tàggatoo. Mm-hmm. waaw maa ngi lay maa ngi lay remercier déjà madame Kane. Mm-hmm. di euh, di remercier di ci ah, ah <laughs> madame Aïda <laughs> di remercier waa. Sénégal yëpp maa ngi remercier également DJ Kalse bi eh, bi nga xamante ne moom moom moo ñu mettre en rapport ak yéen vraiment maa ngi ko remercier bu baax a baax mm-hmm. di remercier remercier également suñu suñu suñu suñ suñu staff bi ndax macha allah bu du woon ñoom kon kon kon kon instant bi duñ fi duñ fi nekk sax euh, maa ngi leen di remercier bu baax a baax euh, ci prod bi ci waa Black and Films également mais également sama yaay tamit maa ngi koy maman maa ngi koy maa ngi koy gërëm di ko sant ndax ndax à chaque fois mu mu mu ñaanal. Mm-hmm. ak euh, maman Maye xam nga waa Foundiougne waa Fimela vraiment bàyyi bàyyi ma. bàyyi ma kenn su ma su ma limee rek juum donc maa ngi remercier ñoom Fred tamit Fred Star ak Alain ah pardon sama jaam laa dalaloon kay ah mu <laughs> ah, sa jaam ah, na na nangu la waaw ah, kay buur laa tey <laughs> waaw vraiment maa ngi remercier waa Sénégal yëpp di di di wax fan si nag di wax nit ñi nañ dem Euh, abonné wu ci suñu page YouTube bi mhm. macha allah clip bi neex na clip clip clip Sénégal la du pour ñun sax pour pour waa Sénégal yëpp la mhm. donc dem leen suñu page YouTube Zik Queens ngeen tapé euh, wujjee euh, ngeen daal di liké abonné dugg si si TikTok bi def leen daal lu leen neex. waaw bu fu leen neex bientôt nag maîtresse dina ñëw. ci fin octobre <laughs> maîtresse bi neex na de. Mm. te ak am sens nag. ak am sens parce que dafa xew si si si dëkk bi sa à dire maîtresse euh, pour juste di euh, entrer tuuti tuuti dedans balaa may kii maîtresse mhm. c'est-à-dire couple gis na jigéen euh, nga bëgg bëgg bëgg sëy waru warul tax ngay genre ngay joxe yenn yi waa warul tax ngay ngay sacrifier yenn yi mhm. waaw ku góor ki daal su su la bëggee daal moom wax dëgg yàlla te fas yi fas yi fas yéene laa takk daal vraiment dina la takk mhm. mais nag euh, bëgg naa nga takk ma bëgg naa nga takk ma jaral na ma lu ne déedéet loolu baaxul. jigéen da nga toog dallu waaw waaw nga nga teg lépp ci loxo yàlla nga téye sa bopp bu mm-hmm. baax a baax. Mm-hmm. parce que góor yi léegi tamit mooy loolu de. <laughs> doy na waar ah. en tout cas thème yi nga fi abordé nii am na solo am na mm-hmm. santé jigéen bu ci xool. dina dina xam fu muy teg tànkam it. donc te la woon pour ñun dalal la. fii nii ah gis nañu wujje bi mu nice ñu bëggoon la fii xam ak nu mu demee ak yooyu noonu. ñu neen xaar na si yeneen <laughs> projet. maîtresse bi ñu koy xaar ak concert yeeg waaw yeneen yeneen ak yeneen yu gën a graaw yooyu ñu ngi ñëw waaw ah, waaw loolu moom dina ko continuer bu baax baax parce que ñu en tant que représentant de toutes les femmes hmm. donc on soutient surtout surtout surtout les femmes hmm. nous ne sommes pas des féministes nag de général déedéet déedéet mais on soutient quand les femmes wax dëgg yàlla ah, waaw waaw a takk jabar ñoom ah, takk dëgg yàlla takk de waaw waaw day ñu koy xale yi nañ nañ takk xale yi dëgg yàlla. maa lay ah. jox ay tam de. ah dama lay takk dama takk ba kañ da ngay ba bëgg dee doo gis dara. ah ay ah, nañ takk xale yi waay. jërëjëf kontaan nañu kontaan nañu trop merci beaucoup. malgré kontaan madame malgré kontaan.